mais moom kan moo ñu jiiñ que parti bi sàcc nañu 600 véhicules du régime Macky Sall. loolu Aminata Tall kan moo ne Abdoulaye Wade sàcc na ay tableau Aminata Tall la woon yooyu. du euh, ñoom Macky kan moo ne ah, les caisses Aminata Tall la woon sëñ bi. wax ko mu leer. ab jeune bu gëm boppam warut a ànd ak màggatum kàcckat je pense que loolu la wax. Abdoulaye mooy kàcckat bi. xam nga loolu la wax devant tout un man ma koy tontu ne un jeune compétent qui croit qui a toutes les qualités requises pour diriger ce pays ne doivent pas suivre les conseils d'une prostituée politique. eh bon loolu loolu wuy ma euh, loolu moom euh, di retirer ko. je ne retire rien. bon man sama plateau moom franchement. non je maintiens non je maintiens mes propos.